Bienvenue sur Salam Vision. Bismillah wutal xale yi liggéey day ah tribune yéene kaay nee na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 lii daal mooy cat la dama ne la président Macky Sall waaw daal dina yëkkati nag lu ci tolloo ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards teg ci taabal ji la ngir jëlee fi wàllum semence bi ndaw maa la ko wax ci ñetti atu yàlla terminé ne en tout programme am bi waaw ngir ndaw ci boppam kon ñu daal leen wutal liggéey bu yeyee nit ñi day convaincre leen président Macky Sall dana ca jëlee ndam waaye nag bu safaan waa amee bu daanoo waaw day a Sud Quotidien en tout cas daal ñi xaar président Macky Sall nag ci conseil présidentiel am muy amal financement wàllum programme jeunes ak wutal liggéey ak wàllum waaw le quotidien yéene kaa ne gis nga conseil présidentiel boobee sur l'emploi waaw Macky Sall day ma ngay katkatti de lox de mbéte ko subiru ak ndaw waaw dama la ñi xaar ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards yooye mbir mi lay mel ak fan lay mujjee tribune yéene kaa ne déggoo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 boo gisul kenn nga sax ba di ca jàppandu laa la wax dara furaas daal di xidee parce que la chômeur gën a bëri ci mim laa la wax ndaw yi nga xam ni ko ne le fera jamais ba ñuy lancé plan Sénégal émergent mais laa leen ko waxoon Macky Sall amul jumtukaay di lay moyen Macky Sall amul gis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 waa APR ñii teew ca jamono jooje député Marème Soda Ndiaye ci 24 heures ma ngay bind gouvernement ba leetar na ci assemblée ngir kool daage xam ne amul sax ab gynécologue laa wax allahu akbar source aane Abdoulaye Diouf Sarr day génnee na yet wa de parce que waa nguur gi nee waaw gën a gàtt ñetti note de ministre bi signé na ko di affecté ay gynécologue ci bët saalumug réew mi mais ñooñee dañoo bañ ay Casamance sa Kolda président Pastef di Ousmane Sonko day waaw lamba gi nag mooy justice bi gaaw ci lu siim laa la wax Ousmane Sonko ne gis nga Macky Sall mi lee fi mu nekk nii ay magistrat yu ko a jël te ko ne la dawut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 jub ngaari la dooroon ne maa leen wax le professeur yemu ca parce que waa gis nga mbir mi dafa am lu ko jiitu laa wax def ay njàngati ay études xam ne day xool ba xam projet yooyee mën naa nekk waa wala déet waaw kay mbir ma loolee la war a doole professeur Sall ci tribune yéene kaay ne gis nga doomu aadama yi danañu jël bor bi xaalis bi danañu ko jël ba pare te duñ remboursé dara ba dara booloo jeex laa wax maar di Pape Amadou di ko attaqué ba léegi ni de di ko attaqué waaw léegi nag rako Macky Sall bi ci boppam kon moo attaqué DER bi ardi Italie parce que Aliou Sall a projet woo xam ne dañu koy financé ngir ay ndaw yoo xam ne liggéeyuñu jànguñu mbir ma man daal loolu gëmuma ko cay Pape Amadou Sarr DER ñi koy attaqué rek waaye moom Pape Amadou Sarr DER moomee ci évidence yéene kaay waaw nee na man day jàpp naa ne président kontaan na ci sama liggéey ak liñ may a yàgg yéene ne Mamadou Kassé day directeur u SICAP waaw daf ci a concertation woo xam ne ndaw yee nekk ca Tambacounda gële doon nañ ko def ma liggéey ba ca boppam kon ndaw yee daal dinañ koy jébbal nag ak Kassé kii di gouverneur u dëkk ba waaye ndaw yee day ca këy ga nee nañ dag baa enoo baa intig baa dañ koo war a ubbi jublu ca ngir xale am liggéey waaw Mamadou Kassé ne man day am naa ci njortu gu rafet ca joo xam ne ne xale yaa ngay wut liggéey day waaw ñaari kër yoo xam ni kon ci réew mi la ñu ne état ko joxoñ sa morom laa la wax naan la mooy douane de la pharmacie et du médicament ardi xaali la ilaha illallah Yérim directeur pharmacie et médicament googe ci source a waaw nee ab lanket boo xam ni kon suñuy élément ak waa police ca boppam ñoo ko doon mëne def ko ba teg loxo kon borom garab yu bon yooyee waaye léegi nan ngay defee ab lanket ba pare jafe-jafe am ñu bëgg la caa jam tuuma loolee yenoon a maanaa Yérim Mbagnick mooy waxtu samay kàddu de docteur Waly Coly Diouf ci laa seeni kaay waaw nee gis nga njaayum garab yu bon yi lé kuñ ci jàpp dañ laa war a atte comme ni ñuy atte kon reykatu nit laa la wax dañ koo war a criminaliser mar di tali la ilaha illallah Abdoulaye Diouf ministre santé ci Vox Populi waaw nee na képp koo xam kon garab yu bon yi ñu jàpp barki dee boo njaay tax nga ca ah danañ la topp laa la wax waaw waaw ma jàmbal jaan jël xale ci la quotidien yéene kaay ne ne waaw libération yéene garab yi nga xam ne kon nañuy dara koo jaay ci Sénégal gi lée dama ne la gars yi nangu nañ de nangu nañ ne ñoo ko def mar di taali la ilaha illallah docteur Aliou Ba day nee na gis nga produit yi nga xam ne kon nañ koo jàmbaaraamu tuuma waaw samay collègue chinois ci boppam kon ñoo ko fi dugal te yëguma ko ñu commencé njaay moomee te banqaas yi nekk ci nguur gi ak privé bi ci boppam kon ñoo ñu ko sant la ilaha illallah tey lii 24 heures yéene kaay ne xam nga Sénégal daal mooy dëkkub dóor dëkkub dóor marto pire Alioune Tine ne gis nga coowal day ko kii waaw waaye ñan ñooy doomu aadama yi nga xam ne ñoo liggéey poson bi ñan ñooy usines yi nga xam ne ñoo liggéey poson bi waaye ban dëkk ci boppam kon mooy joxe ndigal di autorisation ñu fay liggéey poson bi lée te la gën a doy waar mooy doo gis mukk ay démission laa la wax ministre bu démissionné ci ay dojaange wala ay daan yu dal ci kaw fonctionnaire wala ay doomu aadama yu ne ci nguur gi la taxaw baalu carrément baalu ak amul te jamono joojee nga xam na garab yu bon yaa ngi toj réew waaw ña ngay waajal élection locale yaa xeex ba laa la wax termine yéene kaay ne dëgg la Abdoulaye Diouf Sarr Zahra Iyane Thiam ak ña ñu àndal waaw ñoom daal la ñu bëgg mooy gagné Ndakaaru njaajal joob fépp nag laa wax na neex le quotidien yéene kaa waaye gis nga Benno Bokk Yaakaar googee ci Ndakaaru njaajal joob waaw xeex bi diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba day commencé waat na di xeex ba commencé waat na di waaw parce que bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo ko amal ci samedi ji ñu génn day na mu jeexee neexul de na mu jeexee Abdoulaye Diouf Sarr filé def ko borom Dakar Ndiaye jël Diop la patron de Dakar eh way Samba laaste gis nga xeexoo élection locale yooyu ci Dakar Ndiaye jël Diop waaw waa Benno Bokk Yaakaar day ña ngay armé wu de ña waaye problème bi day mooy kan moo leen di jiite problème mu leadership lañ am laa la wax waaw waaw waaye xoolal ma ndaje ma Amadou Ba Ndeye Sali Diop Maymouna Sissoko Moussa Sy nekkuñu fa woon looloo ma jaaxal yéene kaay ma gamal jaa ngi ne waaye xoolal ci diwaanu Mbour gële diggante Sophie Gladima ak Omar Youm waaw ña ngay xeexam de kan waaye diggante Aminata Touré mi lay ak Macky Sall waaw Aminata Touré de ba mu demee ba léegi ni lée laalewul ak Macky Sall waxul ak Macky amul ko ca moom moom it mu yónni ca Macky dara te Aminata Touré day am na lu waajal am na lu waajal waaye yow élection locale yooyee kañ la yéeni kaay groupe ay jege ñaale président Macky Sall day waaw nee nañ élection yi mën nañ koo jàpp ñaar fukki fan ak ñett wala fan ci weeru jamonoy feet mais kenn mënu cee campagne électorale yow tabaski bi ay booru le 20 la ginnaaw gi tam xarit dana dikk màggal dana dikk gàmm gi dana dikk ak feetu fen danay 31 décembre yooyu dafa jar a xel laa la wax te opposition bi loolu la mënul dégg Matar Thioune ndey président yëmbal ca kanam ci évidence yéen kaay waaw nee na opposition bi ci boppam ñoo ragal dem ci élection locale laa la wax Benoît Sambou day ci Vox Populi waaw nee yi ah ñu ngi leen di ñu daal jotaat nag seen i droit civil yëpp le quotidien yéene kaay ne ak juróom benn am ay gaañu gaañu yu mitti mitti daa wax hôpital régional bu Fatick boobee lañ leen mujj yóbbu te gis nga ci jamono jooje waaw tali bi ray ah kaay nee na syndicat gi njaboote waa kër docteur day toogaanu ñaxtu la xëyee démb ca Nabil Soukar Gilé ak hôpital principal bu Ndakaaru la ñaxtu ak li laaj mooy seenu ndàmp ci wàllum corona gi prime ci covid waaw Issa Gueye ànd gësëm ah maa ngi woo képp koo xam ni kon bokk nga Cheikh bu Diop moom nee na président Macky Sall laay woo woo góogóor woo jàmbaar woo béte béte aha waaw nee na président Macky Sall laay woo di woo tamit kii di ministre de la santé action sociale ndaxte nee nañu ñoom dañoo am ay collègues yoo xam ne dañoo corona dañ leen a wàll waaw te kumba am ndey kumba amul ndey gi xam ne nag moom la ñu nimmiku ci waa kër docteur yi nekk ci collectivité territoriale yi lée ak yeneen structures waaw mais loolee ni da wax inadmissible direct news ne en tout cas na ñeenti nit laa la wax allahu akbar ak juróom-ñaar Sowetaas professeur Moussa Seydi ci critique yéen kaay waaw nee na en tout cas genn wàllu lal yi day kenn tëddatu ca alhamdulilahi rabbil alamin kaa yaa ngay wàññee ko waaw waaye professeur Moussa Seydi nee na ñaxu yi lee vaccin yi ah la ñu soxla day ak li fi nekk comme yàlla ak yàlli de ñax yi matul de laast eh, dootul yàggati day danañoo amaat beneen centre procréation médicalement assisté PMA waaw ak beneen centre greffe moelle gi ca hôpital Dalal Jàmm la ca jamono jooje nga xam ni plateau Dalal Jàmm ba ña ngi koy defar waaw le témoin yéene kaay nee na gis nga ci daanu Kolda ke hôpital régional ba ca boppam amul gynécologue mar d'Italie li ñetti weeru yàllaa ngi ni lée lu tol ni amul gynécologue laa la doy na waar li doy waar kay libération yéeni kay nee mooy ca kër Matar Gueye coowal xale bu jigéen bi am kon ñetti at ñu gisoon ko ca foos ba ñu ray ko waaw ñaar ñoo xam ni xel daa ca ñoom day teg nañ leen loxo borom daara ja la ak ay jàngale alxuraan kon ca biir daara ja ca yàlla wutal leen waaw jàpp leen ne lépp nag daal dinay pare aha suba ci alxamis ki la dama ne le président Macky Sall nga xaalisam bi nga xam ne moom la war a xeexee ak wàllum xaalis baa ngi teew ministre de day moo war a taxawal programme bi ci ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards maanaam at bu ne ministre bi dana ci dugal lu tolloog téeméer ak juróom fukki ci ay milliards eh way samba yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne te nga bu ñuy sukkandikoo na kuréel di structure yi nga xam ne financé moo leen tax a jóg ak wutal xëy xale yi lee de waaw dañ leen di fusionné de dañ leen di boole de évidence yéene kaay ne caravane sensibilisation bi day ak information ñaax doomu aadama yi waaw ci wàllum finance islamique ba day Touba la gaa yi doore Fatou Diané mi nga xam ne mooy coordonnatrice Sucromise daal di nay financé lu tolloog ñaari téeméeri million ay jigéen aha waaw waaw Fatou Diané mooy coordonnatrice Sucromise ca jamono jooje deer bi waaw en waa nguur geen koy ŋàññi rek di ko critiquer day tàlli waaw parce que Sall ci boppam kon moo njëkk a attaqué DER bi nga xam ne Pape Amadou Sarr moo ko jiite te Pape Amadou Sarr moo mais boor yu Marème Faye la de protégé wu Marème Faye la de moo taxit Mansour Faye càmmiñal Marème ca page Facebook am démb waaw nee na militants yi def leen attention DER bi mi ngi liggéey liggéey boo xam ne bu ama am solo la laa la wax Mansour Faye yamu ca parce que càmmiñal nga nee na yi nga xam ne moom la Pape Amadou Sarr yëkkati waxee ak ne ko ni nga sottee bokkul nga xam ne nag Aliou Sall daal dina koy doon rakku ma Sall ak bi nga xam ne Mansour Faye ma ko Marème Faye moom la tontu day guerre lay saf de guerre lay saf ci diggante Aliou Sall ak Mansour Faye direct news de en tout cas Mamadou Lamine Diallo daal la mu gis ci luy faj nag wàllum semence kii l'industrialisation nee na nekkul sax saafara bi de mais mooy yoon bi mbay mii de il faut mu méngoo jamono yéene kaay Pape Diogaye Faye bi ne xoolal Sabodala gële waaw ñi nga xam ne dañ leen di dàq fa ñuy liggéey ci li ñu tegul fenn jaay doole moo taxit liggéeykat ya day société bi ah waaw lañ yóbbu ca kanamu justice laa la wax allah koppar liggéeykat yee daal jàpp nañ ne dañ leen a respecté wul kon benn yoon amul benn négociation boo xam ni kon ubbi nañ ko ca te la ca gën a doy waar mooy même seen délégué bi dañ koo dàq eh way samba eh way samba sans l'autorisation de l'inspecteur du yaay doole le témoin yéene kaay ne waaye Mimi Aminata Touré ak ABC Aline Badara Cissé lan la ñuy wàcc ñoom ñaar lan la ñuy préparé en tout cas Aline day waaw seeti woon na Mimi Touré di bañ troisième rey nañ ko président Tchad ba day daal di nay dee Idriss Déby mi ne ñàkk na kon sixième mandat ba Alioune waaw nee na jàpp leen ne Tchad gi dugg na ci guddi gu bët setagul institut ci dëgg sax vox populi ne ginnaaw fanweeri at yàlla yoo xam ni kon def ko ca nguur ñu daal koy fal altine juróom-benneelu mandat talaata ñu daal koy rey allahu akbar nee doom jaa ko remplacé ci dënn ak ci loolu amul rey amul te doomu Idriss Déby dëgg Zakaria Déby mooy ambassadeur u Tchad ca Abu Dhabi Al Abdel Karim Déby directeur de cabinet waaw d'accord ñu benn yoon ci ki ko wutu laa wax jabar ja moom nee na may ca Dubaï ak xale ya en tout kii wutu ko de ba kanam ma ci xootu gerte laa wax parce que bi ci boppam président assemblée nationale ba la bu fi président bi jugee ko wut le soleil yéene kaay ne Sahel kay aj nañ nooyi ya assemblée de critique yéene kaa ne Aliou Sall day waaw mbaadu day dellu si waat bu dee lañ ko digoon day ne ko bàyyil sa mandat jox ndaw yo waaye génnee na yat wa day daal di jox nag Ousmane Sonko mar di taali Macky Sall ci libération yéene kaa ne li nga xam ne moo fi amoon ci jamono jee ñu génn day manifestation yo waaw dootu fi amati de te mënatul amati nag te kenn mënta taal réew mi boobee benn ñaar bu kenn tam xalaat ne nguur gi ci boppam daa dem ba amatul doole loolee citoyen bu normal xëy rek jóg naan songaat gendarmerie dana amaat taalaat ay tribunal dana amaat taalaat ay këru jàmbur yoo xam ne day yow daal tegoo ko fenn gratuitement ah dama la loolee dootu fi amati ba illaa yow mi diin yéeni kaa gi ne en tout cas président Macky day waaw daal dinay daleen na xelu ndaw ya Macky Sall ci la solo yéene kaay tribune yéene kaay ne jàpp ne nag nguur gi dana leen gunge te dootu leen ba illaa yow mi diin danaa ne day génnee na chèque ba ah waaw wala chèque ya kay waaye itam génnee na nag ay daan di ay sanction Macky Sall nee na képp koo xam ne def nga fi lu deful day duñ la baale tolérance zéro perte temps bi ci boppam tamit du ma ko nangu Macky Sall nee na opération yi na leer wujal xëy gone yi lée nañuy joxe xaalis ba ak financement yi lée day leer Macky bëggul lëndëm nay leer saay laa <laughs> ilaha illallah moom président Macky Sall yamu ca dee déedéet sur ko di xëyu ndaw yooyee ak université gi xam ni kon nañ koy caxa kon di fa xeex ah Sall day génnee na karoba de waaye génnee na tamit yebal ala wax dëgg la président Macky Sall xamal ne étudiants yi ne leen nekkoon leen arène nationale ala wax nekkoon leen ci ab ëtt woo xam ne dóorantee ka rayante te gis nga université campus de danañu ko jubbanti kon ba mu jukko bàyyil na pay Macky Sall yamu ca ndaxte nee na ñi nga la ñooñu tam danañu ko waaw l'observateur de waxtaan direct bi doon am digganteem ak jeunesse ba day ah Macky Sall mi la yàpp wala wutal liggéey de yàpp wala wutal liggéey de parce président Macky Sall daal santaaneem yi mu joxe ah bëgg na gars yi waatoo ak moom parce que Macky nee na leen damaa askan wi la ak kanamu ndaw duma baale dara coow li nga xam ne moo fi amoon mars manifestation yi day mais bilan bi mënoon na fee gën a tar ar di tali waaw waaw waaye nag képp koo xam Macky Sall kay signé na chèque bu rëy ba de signé na ko de waaye Khadim Diop mi président conseil national de la jeunesse bu Sénégal day nee na gis nga kàddu jafe-jafe ndaw yi lée waaw gars yi bàyyi xel de déedéet yéeni kaa gi ne xëyu ndaw yooyee gars yi génnee dinañ abako de bako gubee slogan mooy xëyu ndaw Ali Khoudia Diaw ci tribune yéene kaay waaw nee na président erreur amatina de bilaay erreur amatina te erreur bu xasee ba am rek am na erreur la erreur la évidence yéene ba day théâtre la a saf ci li ma yaakaar lii est-ce que du théâtre ah waaw ne ah kay théâtre pire lañ doon def la démb ca conseil présidentiel boobee ci wàllum xëyum ndaw yi laa la wax cirque nañ leen jël exemple wàllu santé wér gu ak wàllu ñaari secteur yooyu wàllum recrutement ba day farata daar daar lañ ko war a def Aliou Samb ba ñaa ca parce que waa président Macky Sall kon lam doon wax démb ak di ko def ca jam ñaajoo yëpp dama ne la bu doon dëgg la ca moom dafay bëgg wàllum semence kii dama ne la kon ndaje ma Macky Sall amal na ko keroog ba xale yi jëlee gaal yi dugg ci biir géej gi di dem Espagne la la wax ay téeméeri téeméer ci ay sénégalais daal di cay dee kon Macky ca saasa lay organiser lii te xale yi dara taxul woon ñu jóge fi lu dul wàllum ndóol gi nga xam ni kilifa ñoo ñu ko rek waaye bàyyi ba manifestation yi am ngay def théâtre di cirque naan da ngay wutal xale yi liggéey tribune yéene kaay ne gis nga xale yooyee waaw dañoo soxla ku leen déglu soxla ku ñu waxal soxla tam ko na ci seen wàllu jafe-jafe yooyee looloo tax ba président bu gaan ngay dani day gëm sa bopp tey xale yi ci mbeddu Ndakaaru njaay jël jóob yi laa la wax parce que Bougane Gueye Dany dana daje ak marchand ambulant yo Bougane Gueye Dany dana daje ak raxaskatu oto ya Dany Gueye dana daje ak mécanicien yi ak menuisier commerçant ya dama ne la Bougane dana daje ak cag-cag yi ak taximan yeeg ya ñaf 24 <laughs> heures yéene kaa ne gis nga diggante Macky ak Ousmane Sonko mi lé waaw ndaw yi ñooy de barki yonent bi ndaw yi ñooy doxal xale yaa ak de ndaxte ëllëgu ndaw yooyee ci côté Macky Sall majorité présidentielle ak njiital opposition bi lé la Coro la génnee na ay milliards Ousmane Sonko mi la nee na wax nekkul a ma démb dee la ñu ko la xaalis bi nga xam ne kon moom lay saf laa wax parce que Mansour dee ca ndaje ma la xamal président Macky Sall ne ko xaalis boobee kon jox nañ ko gouverneur gouverneur yi waaye gouverneur yi tamit day ca saasa lañ jug xamal président Macky Sall ne ko dama ne jotuñu dërëm laa la wax maar di taali gouverneur u Kaolack di Aline Badara Mbeng moo jubal ca micro ba fu laa jaay Dakar de laast programme Macky Sall bi lée ngir waaw xanaa yàlla dugal ca loxoom de miracle am Macky Sall juróom-ñeent ci ay poñ la teg ca kaw tali ba source aane ndajama démb day ay milliards ak ay kàddu yu neex yooyu samba na nooy Macky Sall ak champion quoi ay magge dong ñoo nekk ci kaw direction générale yi ak conseil d'administration société agence yeeg yeneen i kër muy agéruto RTS demal Aprosi ITA juróom benn fukki at jëm kaw rek demal Petrosen Holding ngalae wala banque de l'habitat du Sénégal demal Sodebitex IPRES Le Soleil ay maire ak ay baa rek ñoo nekk sa conseil d'administration ba laa la wax nga ne da ngaa a wutal xale yi liggéey Ibrahima Sall économiste la day ancien ministre ci Macky ci Direct News waaw nee na ñi nga xam ne amuñu liggéey day mais loolee dafa feeñal dëggantaan ngaay suñu wàllum koom-koom gi le parce que ancien DG SICAP nee na secteur informel bi day mooy premier secteur ci Sénégal waaye la fa gën a doole sous emploi bi la libération yéen a kaay ne garab yi nga xam ni kon dañ leen a jàppoon day faux médicament yi waaw facture yi ñu fa jàpp day day na xel de waaye ña nga xam ne ñoom lañ ca tudd yóbbu nañ leen ca kaso ba allahu ak Balla Gaye 2 ci yoru ja ñëw l'observateur ne Balla Gaye 2 waaw amaat na ñaari combat day lekk na lekk gi de millions laa lay wax ni Balla Gaye téye ko parce que ñu ngi waajal beneen revanche ginnaaw bu bëree nag ak Boy Niang 2 ba nuppi laa la wax ak cent millions yoo xam ni kon teg nañ ko ca taabal ja moom doomu dubalees ki lée doomu ndey Aziz Ndiaye dem naa ca football ba réew mi quotidien nañu lan moo tax ba Augustin Senghor mi lée war a dem Augustin Senghor daa a dem ci bopp fédération sénégalaise bu football bi naa dem ma dem ma dem <laughs> tey ñaa ngi jooy troisième mandat ngay xëcc quatrième mandat ah! du tax tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Bienvenue sur Salam Vision.